salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi jégalu xam naa ni day waxtaan woo xam ni waxtaan wu yaatu la war a doon ci xam naa ni ajjuma ji di ñëw ak euh, waxtu juróom yi nga xam ni dinañ koy faral di julli euh, saa su ne ci barab bi kon ginnaaw bi ñu leen ndokkelee ci xew-xew bi ñu génn muy màggal gi ñu génn di waajal tamit gàmmoo gi nga xam ni ci ndigalu sëriñ bi lañ koy defe nga xam ni weer wi feeñ na démb e ñu di ko waajal nag ni ñu ko daan defe fii rek ci barab bi ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Muntaqa yal na ko yàlla saxal yàggal ko kàttanal ko te ñu ànd ko ak moom ñu ciy woo suñu mbokk jullit yépp ni ñu ko fi daan defe rek muy gàmmo gi def ko tamit ni ko sëriñ bi waxee woon rekk tax taxsimoo bi sunnati la mu ca teg tamit mooy neexal boo xam ne bii rek dem àjjana rek moo koy fay kon bon ñuy fexe rek nañ ko daan defee ñu defe ko noonu barab bi nag xam ngeen ni ni courant bi seere ak ndox mi te nag barab bi barabu suñu borom la ñu liggéeyal ko suñu borom taalibe sëriñ Touba yeeg jullit yëpp bokk ci mu nekk loo xam ni jombul kenn sax mën na volontaire ni dinaa ko fay waaye ni suñu sëriñ bu baax ba Cheikh Abdou Lahad waxoon rek suñu mag mu baax moomu Alaaji Njuga ba mu bëggee jël courant Touba ni dinaa ko fay dafa ni ko déedéet nañ ko bàyyeek taalibe yi ndax dama bañ bu ëllëgee ñu ni kuppee nañu courant ba ñu ni diwa tax coupé nañ ko taalibe yi na comme ñoo def seeni dërëm ak seeni ñaari dërëm seeni fukki dërëm seeni junni ak seen ñaari junni ba tabax barab bi mu mel nii ba taaru nii mu taaru ñoo war a yor tamit mbirum entretien bi yor tamit mbiru courant bi ak ndox mi ku ne mën na dara ku ne rek mën nga dara bu kenn xeeb dara rek bu fekkee ne da làmb sa poos sax fekk ci dërëm nga romb kees gi def ko ci wala ñaar wala téeméer wala junni ku ne mën na dara ndax ku nekk yaa ngi am soxla di ko faj te néegub yàlla bi ñun jaamu yàlla yi ñun ñoo ko war a ñoo ko war a entretenir courant xam na ni ku nekk xam nga sa kër ni courant yi chéré courant weesu na fii facture yi ñuy jot bu ñu leen ko waxee doo leen ko mën a gëm sax ndax cher waaye nag lu mu cher cher cher jullit yi xajuñu ci def nañu nag ay carnet barkeelu yoo xam ni ay barkellu la tudd de téeméer nga xam ni boo demee ci jàng suñu mbokk jàng chrétien yi sax boo demee kuy dem église da ngay yóbbaale dara ndex bàyyi ko fa ndax entretien bi rawate na nag jullit carnet yi téeméer la def nañu tamit ay badge yoo xam ni dañuy seet ñi nga xam ni jumaa ji yitteel na leen ñu defal leen badge yoo xam ne day am seen photo ginnaaw altine ku ñëw fële boo ñëwee dinañ la mën a defal sa badge ak sa photo boo xam ne bi badge Masaalikul Jinaan la yaa xam nag naata ngay barkeeloo ci carte bi carte bi ñoo ngi koy joxe junni ku man junni joxe bu weer wu nekk ku man junni joxe ku man ñaar téeméer joxe ku man ñeenti téeméer joxe bu ko defee lii jëm ci jumaa ji yëpp dinañ ko mën a gérer ba nga xam ne bii kenn du tàllal loxo kenn waaye nag jumaa ji jàkka ji innal masajida lillahi la ñu wax waaw néegub suñu boroom nag jaami suñu borom yi ñoo ko war a taxawu ñu war koo mën a bàyyi kenn rek gardaa jeew ko te loolu it tey li nga xam ne du doxalinu lislaam ndax bi ñuy tabax barab bi dañu ne woon dañuy defar list dem seeti ay diw ci waxtaan wu ñu waxtaan ak Cheikh Mouhamadul Bachir la xam ni